ci lunette yu baax yooyu yëpp nga xam ni tarkal la ay photogré ak ay li nga xam ni moom mooy anti reflet ay lunettes yoo xam ni ay monture de marque bokk na ci marque yi ay Ray-Ban ay Ricoh Mirado ay Utica ak yeneen i xeetu marque yoo xam ni Optique Vision Plus Sénégal rek nga ko mën a dem euh, ba daal di ko fay am am na fi nga xam moom mooy ca Dakar am na fi nga xam ni moom mooy. Euh, ca Mbour ca Carrefour bu sali am na ca Kër Mbay Fall waaye am na fi nga xam ne mooy Touba en face euh, Kër euh, Serigne euh, Maam Mortala hmm, loolu nanu ci bàyyi xel bu baax a baax wala ngeen woote ci numéro yi yaakaar naa ni am na 33 821 51 54 57 wala 33 876 61. 03 yooyu ci ay numéro li nga xam ne mooy optique la Mion wax naa ni mooy téléphone bi nga xam ni tarkal la moo gën fi ñu toll nii Mion moom la askan wi yëpp bëgg Mion ci ay photo Mion ci ay caméra Mion ci ab batterie bu baax Mion ci ay ziga yu bare bare bare bare bari euh, demal ci xuma et frère euh, sama waaj ji biram xuma boo bëggee Mion rek loo ci bëgg rek euh, mën na la ko jox ak yeneen distributeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp Kayar eau la boo xam ni moo gën a oyof Kayar eau la boo xam ni moo gën a neex eau Kayar eau la boo xam ni c'est vital xam nga dañu naan eau incolore hmm. euh, yooyu yëpp dañu koy wax waaye eau Kayar gi moom moo tax ñu koy wax lu jar a xel vite fait euh, gamme la xam ni waa kër Serigne Touba Fall et frère ñooñu ko indil bu ñu ci yemoon sax mu neex vite fait ci garabu yoo vite fait bii rey mbóot vite fait ci xeeti nga xam ni yëpp indil nañ ko waaye dañu moom la ñu dippee king king aloe king ak yeneen i parfum yoo xam ni waa kër Serigne Touba Fall et frères ñooñu ko indil jërë ngeen jëf kontaan nañu ci yéen bu baax a baax ñii ñooy suñuy partenaire yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci xalaas gi passe partout jaajëf waay jaajëf waay Abdoulaye Abdoulaye Diop boo ko ci ñu doxal ci xalaas gi ab laa Diop kuy seetaan la auditeur la rek technique gi sax pare saa yi ni mu koy téye du ma neex day téye technique mook may sa mbay gi yaayam toog di leen xaar émission bi war a commencé 30 da nga leen xaar ñu dem doxi koo xamoo yan soxla lañu war a doxi doo xam génn sa tàggoon yaa ngi liggéey boo ñëwee ci liggéeyukaay bi toogal fi ngay liggéey. doo lay wër pour nga liggéey. doo xam sax Ablaye Diop ak Maysa Mbaye man xaw ma xeetu liggéey gi ñuy liggéey nii ba xeetu liggéey la dañ lay wër pour liggéey seet la ba gis la tey kenn seetlu la Ablaye Diop tey Maysa Mbaye lañ doon seet mais ah. yàgg nañ fee toog di seet Ablaye Diop. mais tey seetuñu la. démb ci mujj waaw. Ah. déedéet sa papa ma maa ngi koy ziar bu baax ku baax la sama papa la mais boo defee dama koy wax tamit <laughs> yàlla baax na ay ayca classe gi njëkk lu mu wax. Aba. Mhm. Aba suñu booy dem bi kii bloqué woon Tunisie xam naa ne solution bi ñu ci commencé am. Ah. waaw commencé na solution. RFM waaw. xalaas. nga wax ci. heure bu baax bi. nga naan solution commencé na ci mais nag mais nag dinañ ñëw xam naa ni après dinaa jokkoo kook sama waa ji ñu ñëw ci benn lu xaw a yaatu. Mhm. ci Tunisie sur Sénégal yi conditions yi nekkee ak yi ñu fay duggee aussi. Mhm. parce que xam yenn dëkk yi. yu ci bëri ay sorties libre en fait. léegi nag gars yi ñoom pour ñoom dañuy dem dagg billet rek dem. te xamuñu ne am na yenn yenn kii yoo xam ne dañ koy exiger côté argent de poche ak. côté ay réservation ak affaire demee noonu. donc boo demee foofu mën ngaa ba a dugg. yooyu dinañ ci gën a ñëw indi ci ay leeral dégg nga. abaa dañuy dem Linguère. balaa nga fay dem. waaw euh, directeur yi. nañu dugg ci page Facebook bi. waaw xool li xale yi di wax ci xalaas gi. waaw ah. passe partout xalaas bu teelee commencé. dafa mel ni waa réew mi euh, seen xol yi dafay féex. day neex parce que fan yi euh, ñu ngi koy bind ci commentaire yi naan lii la ñu bëgg ci xalaas teel a commencé ñu am xalaas ba mu doy. donc vraiment directeur yi nañ ko déglu te xam ni heure bii euh, ci fan yi ni ñu koy doxalee nii baax na. dañuy xëy nag cenc tànk yàlla waaw ci tànk yi ngeen nekk ni baax da ngeen xëy cenc mais bis bu nu cencatee may ñaan internet yeeg auditeurs yi nanu ñëw taxaw fii ci buntu rajo bi yii yëngal nan tojaat verre taalaat waaw nan yëngalaat waaw daal damay ñaan parce que bu dee tamit nit da nga askan wi ñoom ñoo la moom ba nga xam ne askan wi la moom da ngay xool neex askan wi nga def ko. RFM TFM askan wi ko moom ñoo ko bëgg. Mhm. yenn saay moo tax ñu ñuy mer par yenn saay ak yooyu te yii tax ñuy mer heure émission yi ci la bokk. xalaas gi nga xam ni ñoo ko moom nga ah. ah. dinaa ko moom de. xalaas gi day yëngu ba. bu amatee rek ñoo leen fii taal. day yëngu ba ca avenue ba nekk euh, Cincinnati. fépp la yëngal côté station ba noonu. Ah, am nga ay nit ñu bees de. Ah, mooy yàgg na. Ah, am nga say nit ñu bees moom taay moom du am ay nit nuyu Doro Gaye mu baax mi. suñu waa ji Doro lay nuyu bu baax. xippil xool ah Doro ku xool ku gisul yaa ngi dégg. te da ngay gis force. li ngeen. papa jaray rom ja fetal la ko dóor ci biir mu faatu. kii ni ma joxee xalaat yi nii lan la ci kuy soog a yeewu naanagul café transition. wal jaar muy nu ñaari kaas café waaw dina indi café gi mais Linguère Papa Ji rey doom ji par pistolet la ko dóor ci biir la ko dóor mu wàcc te te te te te te c'est pas la première fois paa bi di def acte yooyu noonu ci li ñu jot a gum ci ay xibaar nañ ko gëstu nag mais suñu waa ji Baye Assane tam ñu nekk Linguère moo ciy ñëw mais yow li ngay wax nii Chicago laa ko doon dégg Brooklyn Sénégal fii yow abaa Sénégal génne baru pistolet dóor moom abaa Sénégal Sénégal yow kon yow yoroo fetal mu ne. yoroo fetal. yow laa wax man militaire laa wala damay guerre wala yow lan la. Ah, man de ci jàmm laa ne de. man de wax dëgg yor naa moom. ak gaaw a baalu. man yor naa de. boo génnee ma daw. dëgg yor naa moom. nañ déglu ji am ci weendu guubu ci commune bu Thiel département bu Linguère moom la ñëpp di waxtaanee jamono ji ndax jëf ji ñi mu jégee dayoo xale bu góor bi ñu boom te ay atam toll ci ñaar fukk ak ñaar te waajuram def lu ñu mel ginnaaw bi mu ko soxee bal jëmale ko ci biir bi te mu jaaree fa faatu néewam nag jamono ji mi ngi ci morgue hôpital Magatte Lô bu Linguère te ñi ngi taaxirlu dogal bi nar a tukkee ci waa kër docteur ànd ceeg procureur bu Louga ki ñu jàpp ni moo faat doomam mi ngi ni mër démb ba tey yóbbaale sax bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu taataan fetal gi nga xam ni moom la boomee doom ji wante terewut waa gendre gendarmerie bu Linguère ñi ngi def seen kem kàttan ngir teg ko loxo balaa yàgg dara ci fàttali sax ñi ngi ñuy xamal ni gi yoon duguleet ndax reyoon na fi nit ci at ji si ginnaaw daal di daw comme ni mu ko defee tey jii moom mi nag deful tey lu du xañ doomam ji mu jur bànneexu gis moom it doom ndax bu yàggul rek la am soxna boo xamante nii tey jii dafa nekk jigéen ju wérul Baye Assane Diaw Linguère rajo Futurs Médias xalaas dégg nga Aba Linguère la xewee ñuy gërëm bu baax a wax Baye Assane hmm. euh, moo toogal euh, groupe Futurs Médias foofu ca euh, lingeer li doy na waar de waaw mais dinañ ko topp nag waaw dinañ ko topp parce que yaa ngi dégg ci wax ji mu ne c'est pas la première fois Pape def lu mel waaw dinañ ko topp baax Aba waaw sa gars yi ñu ngi yëngu de. ñu ngi réagir waa Marseille ak waa Suède ak. Mm. ñu wax ci heure waaye ñu wax ci nuyoo yi nga war di nuyoo. waaw Cincinnati rek ngeen nuyoo. Ah, waa Suède dangay da ngay dajale Europe. États-Unis waaw euh, Afrique. ñu nekk ci sous région bi. waaw comprendre nga Australie ña ca Dubaï ña ca Arabie Saoudite. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi di ñaanal jàmm di leen mënuñoo lim ñëpp waaye daal. ñu ngi anticiper tamit ci coupe du monde bi ñu ne on va la RFM ci coupe du monde bi. lan on va Malal Junior Diagne et Cheikh Tidiane Diagne ci coupe du monde bi. <laughs> ak sama beneen papa ji naan waaw. tas tas Tassirou waaw waaw Tassirou Tassirou waaw waaw waaw Tassirou parce que. sama pap nga ne. nu muy def nga ni. fii buy kii. waaw comme su ma naan laal la kii laal na ko laal laale am njaay joxal jóob ak yooyu. waaw surtout jaan naan c'est du jamais vu c'est extraordinaire moom moo xam nga ñun ñi nga xam ne dañoo dër dañoo baax ci société. wax ji bu gaawee ñun dañ koy équilibrer. dañ mm. koy yéexal mu tolloo mais pas bi da ngay gis li malal di accélérer am njaay joxal jóob kenn musul gis lu mel ni wiri ne ko Cheikh Tidiane naan oh la la la naan. xalaat ci topp nga ne lu mu wax. waxal waa Mauritanie ak waa Mali Mauritanie ak Mali ci sous région bi lañ bokk ñu ngi jaar ñëpp. ñu kontaan ñëpp àddina ñëpp ñu ngeen di nuyu. ñëpp ñëpp di leen ñaanal jàmm. na ngeen am ay Mion am ay Eau Kayar vite fait yi ci seen kër yi yoo yéeg yëpp ngeen mën di ko rey. am dolka yàlla ngeen am dolka. Ah, yàlla ngeen xeeti baax baax yëpp daal yàlla nañ ko yàlla na ngeen am ay lunettes. Optique Vision Plus Sénégal di gis fu leen neex live bu commencé ngeen mën a seetaan am jàmm di màjj màjj nañ jëm ci xalaas bi. abaa. Mhm. abaa xalaas bi la ci ay kaf la commencé waaye ba mu mujjee dugg ci lu sérieux loo xamante ni ndaw si dama dama dama dama changé voix bi ba mu xaw a róog quoi parce que affaire bu doy waar lay wax nii xam nga dem ñu ngi fi indi benn cas euh, Ibra sëriñ bi doon nax copain yi quoi ci affaire jàlleen ci affaire sëriñ ak yooyu. Mhm. ndaw si du ko def jëkkëram dafa nax jëkkëram ci affaire sëriñ ba lekk na ko lu tolloog dix million Hmm? waaw mais après la xew ci biir ci kaf bi loolu moo doy waar a baax doon foo ba lekk dix millions. parce que moom nekk naa jëkkëram jëkkëram nekk na borom daraja. Hmm. mais seetlu na ni jëkkër ji addunaam lépp sëriñ la. Hmm. Ah, jëkkër ji talul talul njabootam. ndax sëriñ sëriñ wut xaalis mm-hmm. mu xool nu muy yokkee xaalisam ci wàllum sëriñ ak yooyu noonu mm-hmm. léegi nag moom dans un premier temps bi mu gisee waa ji ci téléphone bi muy dama ko ñëw dafa jàppoon ni day doxaan mu fexe ba piraté whatsapp am di jot ay message am mais message yu sëriñ lay jot seetkat yi affaire yooyu mu am idée wu jaar ci loolu ndax ko ci wut benn téléphone wut benn puce message ko ne ko samay rawaan ñoo ma jox sa numéro nangam nangam commencé seetal nag xam nga sa jabar nag bu lay seetal moom. da gis da gis. ay ah, yàgg na laa gis bu xëyee dem bu xëyee dem bureau ah ku gis la gis te ñoom moom surtout bu la taas ak say timpi tàmpa ak yëf-yëfa <laughs> sa jabar bu lay seetal dina gis te eggalil <coughs> bu xëyee dem bureau jël benn téléphone laxas mouchoir woo ko. yàlla bu mu la seetal bari la fan yi amul taxulaa am. performance noonu am na ay ñaan yoo xam ne moo ko ñaanee la nga gën a am danga koy yëg da ngay xam ni kii xam na la ngay xam ni kii mu ngi lay gis yëggalee fan yi sa yi ngay gérer ay match amical la gérer goo match professionnel da gën ngaa gérer match wala ay da ngay match nii rek fan yi gën nga am victoire nga xam ni match yii yëpp da yaa ngi koy ñàkk nga xam ni yaay Liverpool yow fi mu toll nii dégg waaye daal ci bi dégg na mu koy ay sarax. yenn saa mu dugg ci internet bi téléchargé ay xar yónnee ko comprendre nga waaj di yónnee di yónnee. ba dix millions léegi nag ban ndaw si dem ba bëgg ca génn nag ci la découvrir ci waaj lu gën a garaaw. Hmm. li mu doon xalaat. déglu première partie bi. ayca fële seen euh, thème bi deux jours yi daf maa xaw a kii tuuti ndax man moom damaa def li ni mel sama jëkkër. wax dëgg fa yàlla te rëccuwuma ko nag dama ko fekk si li mu bëgg damaa yor borom kër goo xamante loo ko wax sëriñ ngëmu ko dafa bëgg sëriñ tellement dafa mystique ba sëriñ bu ko waxoon tey jii na ma fase sax daf may fase ndax sëriñ si jaral na ko lu ne ak yokk xaalisam gi te yàlla may na ko xéewal macha allah waaye du doylu xam nga yàlla moom li du la may lépp. moo tax man tam ma toog seetaan ko mu ne kii lu muy dëkk ci sëriñ ji lu mu ciy sonn ak alal bi mu ci de te mu mënoon kaa def ci man ak sama ñaari doom ma ne xaaral kii foog ma saqal ko pexe xaw ma nag sama idée bu fan la jóge ma dem jënd téléphone bu bees jënd puce bu bees def ko ci. nekk ko ci moom bu xëyee ma xëy. sama côté prise de contact bi ak bi ma ñëwee di ko daan sëriñ euh, dama piraté woon euh, compte WhatsApp am bi donc du dama doon euh, jot ay message am xam nga message bu dugg rek moom bu ko jotee man dama ko doon xam nga moom daf ma jàppoon nag jigéen boo xamante ni xam nga je suis pas nekk ci wa lu wax ma ne ko waaw xam nga affaire yooyu noonu cool cool bi daal xam nga yaa ma a xam boo ma gisee da ngay naan kii femme naïve la et tout parce dama ko doon gis tout le temps tout le temps muy jaabante te dama ko ñëw ma yaakaar ne woon jigéen la affaire jigéen la quoi mais après bi ma demee di jot message bi ma xam ne du jigéen kii waxu sëriñ rek lay lijjanti mbirum sëriñ rek lay lijjanti xam nga ma envoyé ko message xam nga ne ko man de dama toog xam nga samay rawaan wan ma say mbir affaire yooyu noonu samay rawaan ñoo ma jox sa numéro wan ma say mbir xam nga léegi moom li mu doon waxante sëriñam yooyu noonu à travers WhatsApp li mu doon doon wax affaire ma jaari ko fa déjà xam viom ma wax ko ci euh, ci seet ma wax ko ci loo sëriñ mënul woon xam loolu ci moom est-ce que tu comprends wax ko ay wax yooyu noonu ba convaincre ko xëcc ko mu ñëw xam nga soo kaa tegal ay affaire naan ko mun naa lii dinaa la defal lii sarax bi bopp moom déjà ci seetlu bi ci seetlu bi foofu laa ko gañee foofu laa ko gañee carrément ndax wax naa ko ay wax sa jabar lii sa doom lii xam nga fii nga jaar lii nga def ak lii say parent jaaree naa ko fu ne jox naa ko ay information yoo xamante ni moom moo ko mën xam wala wala wala wala entourage am wala wala moom déjà yi ma ko waxoon sax entourage am sax mënuñu ko woon xam ndax wax yu muy wax ci WhatsApp bi wax yooyu laa ko delloowaat jukku foofu laa ko amee woon nag ma nekk ci moom di ko wax ay wax di ko wax ay sara xam nga ko maa ngi dëkk ak moom daanaka xam naa lépp juuku lu ma ko wax mu gëm ko mu yën yónnee xaalis dama yónnee xaalis mu naan ko machine lay def affaire yooyu noonu mu naan ma looloo gën a gaaw sax xoolal di ko defloo ay affaire dem naa ba luweloo ko chambre ne ko xaalis buy ñëw rawaani fa lañ koy jaaralee da ngay jënd valise bu gees dugal ko ci néeg bi affaire yooyu di ko génneeloo ay sarax heure bu ma envoyé pour sarax ma dugg ci internet bi xool xar bu baax wala xool kii yónnee ko ko naan ko gis nga xar bii laa jënd wala nag bii laa jënd. xalaas. dégg mhm. léegi nag Aba ci biir kaf gi nii nag dañoo dem ba ci biir nag am lu ci xew. lan moo ci parce que ndaw si. mi ngi koy wax mu ko jox ay xaalisu sarax mu dem na ba jël ko lu toll ak huit millions. ndaw si tàgg ko maanaam seetkat bi quoi ni ko damay dem Mali parce que proposé na ko mu luye benn néeg rawaat nañ ko war a indil xaalis bu bari. Hmm, foofu ci biir néeg bi. waaw bi mu ko tàggoo pour dem Mali waa jox ko un million na ko na paas comprendre nga bu duggee ci nat bi dugg ci affaire comme kii wu benn mois yooyu yooyu tersage ko yónnee ko ni ko baa ngi def liggéey bi léegi nag ba mu ba benn instant mu xaw ndaw si xaw a ragal nag mu génn ci affaire bi. comprendre mhm. mu woo ko ne ko affaire yi pare na mais pour nga jot ci xaalis bi dafa am benn sacrifice boo war a def waaj ne ko lan la munu ko xaalis boo jotee sa doom day génn àdduna sa jabar day paralysé waaj na ko d'accord na. auzu billaahi mina sheytaani rajiim. dégg soxnaam mu am handicap doom ji gaañu. waaw pour mu jot ci xaalis bi. nee moom toute façon bu jotee ci xaalis bi dina compenser jabar ji ci xaalis bi. ndeysaan te dina amaat beneen doom. ndeysaan ndeysaan. léegi nag ndaw si affaire boobu noonu. waa ji xalaat na ni xaalis bi bu yegsee ci jour bi. lendemain bi moom mën naa faatu fa yàllaaw moom xalaatu loolu. balaa bu yegsi sax fi mu toog ñu koy indi diggante bi bu doon dëgg la. waa ji moom xalaat na ni xaalis boobu bu yegsee mën na cee wut oto oto boobu muy jënd ko dawal balaa muy yegg këram moom mën na cee accidenté faatu. moo koy baadu yëngal ne ndaw si nag wax jooju noonu. da koy traumatisme mën na yàq addunaam. ndeysaan ci alalu adduna. alalu boo paree ñu déglu déglu. ñu dëkk ci noonu di génnee sarax di génnee sarax moom daal mu may yónnee xaalis chaque deux bu ma toogee. am benn idée bu ñëw sama bopp bi naan ko affaire bi lii moo koy tardé lii ak lii léegi moom daanaka am na benn moment sax demoon na ma bëgg naa reculer waaye mënuma reculer ndax li ma def pour affaire bi ñëw dafa bëri du coup yi may laaj nii wul par rapport ak li ma joxe daal xam nga donc mënuma bàyyi mu sedd noonu foog ma dem ba affaire bi mag ma ne ko amul problème mat nag ñun tamit ñu dem ci jeu boobu noonu ñu toll nag ba ci moment boo xamante ni euh, délai bi ma ko joxoon délai bi passé gis naa ne commencé na découragé ma ne ko léegi damay dem Mali ci suñu kii foofu xam nga comme ça affaire bi doon na gaaw mu ne amul benn problème mu yëkkati un million jox ma ne ma may financer sa voyage ma ne ko ok amul problème ñu nekk ci xoolal man daal ci internet bi laa ko jàppee di jël ay affaire mooy image Mali yooyu affaire yooyu di ko ko yónnee naan ko fii laa nekk di ko wax ay tuuru dëkk lu ma ko wax mu ko moom daal li mu bëgg na ko am rek. xelam wëlbati ko carrément te xoolal yàlla bi ma tiim xam ne mu musuma dem ci sëriñ sax ne ko defal ma lii wala defal ma lee pour mu xaw a ñëw non jamais mais man ci jeu d'acteur am ci laa ko fekk si dama xam ne kii dafa bëgg lii xam nga souvent da ngay dégg nit naan diw def maa liggéey pour mu mën maa am may def li mu wax souvent du loolu sax day fekk moom mi ci boppam loolu la gëm rek ngëm-ngëmam nga topp rek noonu laa ko def nii def noonu def noonu mu dem genre ma lekk ci moom lu ëpp ay huit millions ma dem ma xam ne nag fii moom affaire yaa ngi kii man tamit affaire yaa ngi neex ci man mënumaa reculer xam nga pour arrêter affaire mu tiital ko ma ne ko ah affaire yi daal xaw naa dëgër nag léegi euh, sama rawaan yi dañ naa laaj ni soit da ngay joxe sa jabar wa ilaa nga joxe sa doom xam nga léegi mu ne amul benn problème léegi wax ma nu muy demee ma ne ko euh, affaire buñ ko defee sa jabar day nekk handicapé à vie sa doom day dee mu ne ma amul benn problème sama doom bu deewee façon dinaa amaat yeneen doom sama jabar aussi bu ma demee ba am li ma bëgg mun naa ko compenser ci xaalis quoi xam nga te mun naa amaat beneen jabar ma ne ko ah ma ko ok ma ne ko nangu naa ma ne ko léegi processus boobu pour ñu commencer foog nga joxe temps mu ne waa am benn problème. xoolal li ma ko laaj mu joxe loolu ñu dem ci di dem ci di ma lekk ko lu ëpp dix millions ba man mii sama jum bopp nag mu commencé tiit nag waaye taxuma reculer de damaa xëy bés rek na ko affaire yi nee na mënul nekk mu ne ah ak man xaalis bi mu dugal nii gée dugg na nii génn na nii affaire yooyu noonu ma ne ko ah rawaan yi nee nañ mënul nekk ndax sa jabar ak sa doom ñooñu ëpp ñun ñëpp bopp xam nga buñ leen naree def dara yow mi sa jëmm bopp yaay dee. man ma nañ bàyyi noonu nii de laa ko def lekk ci moom di ci sama bopp di ko def ci sama doom affaire kii sacrifice humain bi moo ko waxee sa jabar sa doom wax affaire bi traumatisé na ma toog naa du jour et des jours di ko jooy di ko xalaat ba sama liggéey sax daanaka mënatuma ko woon parce que affaire bi daf ma choqué de tel euh, point que man je pouvais pas imaginer que moom xaalis jaral na ko lool ba xalaatoon naa divorcé duma la fen xalaatoon naa divorcé dem affaire yooyu noonu mais bon je ma suis dit peut-être moom ba fi ñu toll noonu bi mu dalee euh, sëriñ tu ba fi ñu toll noonu bu amoon sëriñ bu baax wala mu am sëriñ bu baax kon heure bi du ma fekk ba man mii may ñëw jóge fee ne xam nga naxee ko noonu terre à terre xëy na moom bu ko defee pour sama doom wala pour man ñu dee wala dara xëy na yàlla moo ci moo moo ci ànd wala suñu euh, dund foofu la ko yàlla waroon a jaar suñu dee xam nga. xalaas. la benn affaire ah ci côté fi mu ko jaaree bu doon nit ku normal la kenn du ci d'accord mais gis nga ndaw si xëy na dafa am lu ko lu ko jaarale ci yoon boobu pour mu xam ba nit la nekkal. Mhm. amaana bu ko defuloon dina xëy rek moom dundam yàqu lu mu xëy doomam deeti kenn xam lan la. mais ñi seen sëy est-ce que deeti na neex. mais dootul neex Abba c'est ça le problème parce que chaque instant yaa ngi toog xalaat ne kii bis bu amee possibilité bii nii. daf may sacrifice dina ko mhm. surtout doom. waaw ah. sa jabar. sa doom ndax alalu àdduna man dama yaakaar ni nit day wuti alal pour ak famille am waaw dama yaakaar nit day wut alal pour sa famille kontaan wala pour mm. dundal sa famille wala pour sa famille di ci dund wala pour nga gën a mën a téye sa famille mais pas sacrifier sa famille pour am alal après boo amee alal ji ngay xam ne alal faju daara ma wax la ñaari mbir di nga ko gëm di nga ko gëm fi bari bañ ko wax parce que xam nga ñiy sacrifier nii at mu ne am na lu leen ay sacrifice yi di laaj. seen dund du neex xanaa déggoo ma seen dund moo dul neex alal dafa am noo koy amee am na ci ay conditions yoo koy amee sa dund neex. parce que ñun war nañoo sant yàlla de. baax a baax a baax a baax. ku yorunu wérunu waaw waaye suñuy nelaw doy na. <laughs> sa ngay nelaw ba kontaan sa xel day daal parce que heure boo tegee sa bopp ci kaw da ngay nelaw parce que xam ngeen am na ay milliardaires yoo xam ni maanaam. buñ la waxee kañ lañ gëj nelaw mat na six ans. déggoo ma de six ans nga wax abaa daf tamit waxuma la six dañ dul nelaw. fii ñu toll ba ba ñuy dee duñ nelaw. nit ku def yenn yi pour ay sacrifice humain pour ay am alal ak ay yi sa jabar sa doom ay doomu jàmbur ak. moo tax looy dégg ñu naan la ay sëriñ bi daf maa sëriñ bi daf ma waa ji fu mu dem daan sëriñ moo ko nax ndaw si jëkkëram. fépp fu mu dem daan sëriñ moo ko nax dañ koo takk nax ko fekk kenn def ko dara. moo tax man gis nga ay nañ génne sarax ak yooyu bu weesoo soow ak ndox ak miskit ay ceebu yàpp gi yëpp dama naa dinañ ko añee dinaa ko toog kër gi ñu añ ko. abaa ah, doom tamit yooyu sama yi. dooma ñaanal laay jóg balaa may fàtte ah moo Kër Massar moom fi yónnee benn communiqué ba dem ba tey euh, sëriñ Modou Sey dafa réer avant tabaski mi ngi dëkk Kër Massar doomu Taala Sey ak Mboose Sey ku ko gis na woote ci 78 121 72 86 78 121 72 86 wala ci 77 150 17 17 mooy numéro xalaas bi. laay keroog yi ma xiyam paas. ndax mi yorul dara di dox di diggu àjjana. gis milliardaire boo xam ni da nga koy romb ci tolof tolof yoo xam ni. wuy ma damay romb di falaale. keroog yi ma xiyam ab lay jublaan nar a noos. Bekol Wanasan Negeri Ngasor Universitas Presiden Terlalu Apalagi Pemimpin Presiden Presiden Terlalu Amoy Domor Isuru Jera Kali Jera Kapra Roka Presen Ngako Senam Lip Sandi Bisa Mende Pale Bakon Ayak Lelala Mune Klari Sang Spesial Du Gubernur Senal La Frok Santala F Le Porsar Sengor Jan No Sang Suar Kerbeb Ju Kerbeb Aula Dim Dim Dim Maksal Dim Dim Dim Dim Dim Arbab Ki Wara Bagi Jot Presiden Kok Kalor Roka Fale Wata salaamaaleykum. ah maa ngi siyaar de. joxal tur beeg sant bi. maa ngi lay siyaar bu baax a baax. delloo nañ la siyaar maa ngi tudd maa ngi tudd El Hadj Diop. yaa ngi tudd. El Hadj Diop El Hadj Diop. El Hadj Diop. waaw di baykat waaw waaw waaw. El Hadj Diop di wootee fan ci réew mi. maa ngi wootee dëkk bu ñuy wax daal Ndiobène. yaa ngi wootee Ndiobène. Euh, waaw waaw waaw waaw su ñu laaj li waral sa woote ci biir pale bi ci waxtu wi ñu toll. Euh, waaw woote bi euh, li ko sabab. Hmm. dañu di ay baykat. Hmm. yàlla dogal baykat kenn gënu koo gëm yàlla. Hmm. moom mi jël gerteem def ci suuf. di xaar yàlla ji taw ngir mu mën a mën a jëriñoo. kii gëm yàlla e, e, e, foofu la yem mm-hmm. waaye nu seetlu ni daal fan yi mm. dañoo sooxe daal ci wàllum ndox mm. waaw sooxe gu ñu sooxe ci wàllum ndox nag mm-hmm. waraloon daal maamoon lu ma xalaat ndax comme comme comme comme Ndakaaroo ngi inondé mm-hmm. inondé du mooy ndox mu taa. waaw mooy ndox mu bari. waaw waaw du Ndakaaru bu ndox ma taa na bari. waaw ndox Ndakaaru kay foo fépp comme géej moom foo jaar fépp ndox. waaw kay waaw kay loola laa lu ma xalaataloon président. Hmm, loo ci xalaat. waa li ma ko xalaataloon mooy. Hmm. ndéemal baa ngi jooy ndax eh, ndox mi bariwul lool lool hmm. wax dëgg yàlla ba nu ko gërëmee ba noppi ci pont yi mu defar ak yëpp. Eh, damaa bëggoon daal mu wut récolte boo xam dana toll ci un milliard mètre. un milliard ci mètre di raakoo. bu ko defee bu ko sampee ci ndox moomu nga xam ni moom mooy euh, euh, euh, inondé ci dëkk bi ci Ndakaaru. Ah. def ko direct ci tool yi nga xam ni daanu mën a bay sax bayum noor mën bay bayum nawet bu ko defee duñ ko jar sax ñuy wut pompe di di di pompe ndox mi ngir taataay yi jeex day dem direct ci tool yi bu ko defee baykat bi gis ci boppam. ki hmm. këram taawul gis ci boppam moom président mu gis ci boppam jàmm ni ñooy. <laughs> yow sëñ bi xalaat yow. waaw waaw waaw xam nga ndox moomu taa dafay yàqu rek. waaw. te man naa dem ba yàqal borom kër ya seen i kër bu ko defee lu jóg ñu ni président. ah waaw te amoo beneen idée bu dul wut ay ràkkol samp ko Ndakaaru pour mu ñëw ca Njóobeen googu. waa léegi ndox moomu dañ koo mën a dugal ci avion